kuy ti mu seere la kuy génn mu seere la làmpa ngoog kon moo sagal maam ra Rafaal moo bëgg Cheikh Rafaal am na jamono boo xam ni bu ma duggee ci maam Cheikh Rafaal sax naa leeral lool maam ra Rafaal sëñ Touba dafa xëy woolu ko mu wuy ji ko ànd ak sëñ Yaaram Mbay mu woolu sëñ Fàllu sëñ Fàllu wuy si ko sëñ Fàllu bi mu ñëwee sëriñ Touba daf koo jox këllu wén boo xam ni da cee def ndawalu ginaar ni ko demal ca mbaar moo mu sa bàyyi Cheikh Rafaal a nga fa toog ngeen andando xewlu seigne fallu gaddu ko ñew fekk mam Cheikh rafal fi mu tok mu nuyu ko ni ko bàyyi ku tedd ki neena ñu bokku xewlu mam Cheikh rafal ni ko ah bismillah jam ah xaj du lekkandoog boromam ab xaj day xaar desit desit lay lek te yeen yene suñu borom aram na ci man may bokku yeen ndap xam nga lu xew muhammadu Fallilu da ngay tok xewlu ba agal so agale sa desit mom la soxla sëñ Mam Cheikh Rafal wax sëñ Fàllu wax wax Mam Cheikh Rafal ni desit lay xaar seen la xaar ma xaar desit sëñ Fallou toog di xéewlu ba mu yàgg mu laaj maam Cheikh Ibra Fall ni ko man de bàyyi Cheikh am na lu ma bëggoon nga leeral ma ko ndax ren jii laa wàññi sa digganteeg sëñ tuubaa di ñeen fukki at ba nga jébbaloo Mbàkke Kajoor ak léegi ma bëggoon a xam lan nga gis ci sëñ Touba lu bees ci yow loo xamul woon ba nga jébbaloo léegi maam Cheikh Ibra Fall ni sëñ Fallou ah bu dee loolu am na de lenn dong laa seetu ci sëñ Touba mii ci biir loo xam ni ba may jébbalu wax dëgg yàlla ak léegi xaw ma woon ko ci moom mooy bi jaaw bi ma gis ci moom mu bees tàq ci moom te xaw ma woon bijaaw bi waaye bu dul bijaaw bi de na sëñ Tuubaa meloon dara yokku ci dara wàññiku ci na mu jaxasoog boroomam rek la mel sëñ Fàllu ni ko ëskay bi mu àggalee xéewal googu gi jox ko maam Cheikh Rafaal maam Cheikh Rafaal di barkelu sëñ Fàllu dugg ci kees gi sëñ Tuubaa ni ko ana sa baay Cheikh mbaa xéewlu na sëñ Fàllu ni ko ah man de damaa yéem bi ma ko waxee kaa ñu xéewlu daal daf maa wax ni xaraam na ci moom bokkandook nun ndax moom mooy sunum xaj te xaj lekkandoo lekkandook boroomam xaj ja sit lay lekk sëñ Tuubaa ni est-ce que yi ciy man ak Ibrahima faal ñeen fukki at ci ren ba mu jébbaloog léegi ca Mbàkke Kajoor waaye dara soppiwul ci moom de lu yokk wala mu wàññi ko ci moom lu dul xanaa taalibe gi dong la mës a am bi jaaw dong yokk ci Seex Rafaal de waaye pas-pasu Seex Rafaal dara yokku ci dara wàññiku ci pour wan la kon ni ñu amee connexion ñoom ñaar da seeni wax yëgooñu mu juboo noonu loolu sëñ Fallu lañ ko waxante loon sëriñ Fallu noonu la bëgg woon